asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi nuyu yéen ñëpp man la Mbacke Ndiaye tuuba néew na lool nag walla yaakaar naa tey la njëkk ngeen gis ma may def ab vidéo waaye daa mel ni tey mënta ñàkk li ko waral it mooy police bi nga xam ne moom lañ rajee dàq ko tey te fekk mu doon sujjóotal wala mu doon sukk di ci seigne Modou Kara Thierno Mouride Sadikh da ko publier won doon ci def ben direct ma publier wat ko bi ma ko publier waté ci sasa la ma sëriñ Dame Mbacke mom sëriñ Cheikhul Khadim woo ma ci sama téléphone néma dama bëgg nga top tol ma police bi ba xam numéroom ak nuñu jokk ak mom mom ma jox ko fi ci Touba muy ñaari pak yo xamne benn bu mu ci bëgg ñu jox ko ci bu fekke dafa bëgg deug ci tuba wala lu mu bëgg ci loola loola nak muy ab soñé bo xamne mënu ko ñàkk baña def jëme ci sama bop ak bépp mourid bépp julit ndax mbir mi ñepp joko bok bokk li ko sëriñ bi ci bopam muy sëriñ Dame Mbacke moom Mutula mu al dafa wax né képp ko xamné sëriñ tubaa buñ yëngatoo jëm ci moom loo xam ne ab safaan la war ngaa jóg jàppale ko kon moo tax mu ne na ñëpp jàpp ci lii ngir sëriñ tubaa tax mu doon def ginnaaw sëriñ tubaa moo tax mu doon def nag ba lii dal ko ca képp ku di jullit ak ku murit ak foo mën a nekk ñi ngi lay woo nga jàpp ci lii jàppale ci Pape Bouba Diallo ci lii nga xam ne moo ko daal ba incha allahu du ñee te jàpp ne du ñee te jar na koy dëkk maa ngi ci woo ñëpp léegi nag numéro yi nga xam ne képp koo xam ne nga cee bëgg a jàpp am naa numéro jot naa Pape Bouba Diallo ba noppi waxtaan nañ waaye numéro yi nga xam ne mooy yi mu yi mu joxe yi joxe te Ceddo Murid euh, defoon ko muy Orange Money ak numéro Wave yëpp danaa ko publier waat ngeen gis ko ci sama face bu ko defee ku ca man nga jëmee ko foofa foofa ca Ceddo Murid mooy bam mu woon na ci ñëpp jëm. maa ngi ñaan daal képp koo xam ne ab jullit nga ak foo man a nekk surtout murid yi ñi nga xam ne ñooy ñooy waa kër sëñ Touba lii ñu teg kii ñu teg ko kook sëñ tubaa ñu jubli ci jàpp ci ngir yàlla jëmi sañ Touba maa ngi nuyu ñëpp xam naa li ma bëgg a wax mënu ma ko wax ni ma ko bëgg a waxee ndax ni mbir mi moo rëy ci man li sëñ daam def ma bëgg ñëpp jóg ci ngir yàlla jëmi sëñ Touba wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk àdduna bi maa ngi leen di siyaar yee ñëpp mbokk jullit yi sama mbokk taalibe Serigne Touba yi di def vidéo bu gàtt rek di ñaawlu jëf ji nga xam ne jëf nañ ko Pape ba jàll muy policier bi nga xam ne daa war warmaal Serigne war warmaal Serignam sukkal ko ñu futti ko dàq ko da dañ ko jëloon sax yóbbu ko beneen dëkk bu sore waaye nag. danaa xam naa ni kontaan naa si murit sëriñ Touba yi nga xam ne jëf ji nga xam ne def nañ ko solidarité bi nga xam ne taxaw nañ fépp fu murit sëriñ Touba nekk si àdduna bi cinq continent yi yéene taxawal ab téléthon te nañ ko ñu jàppale ko Pape Bouba Diallo mi nga xam ne takk der la nekk si biir police bi ñu bunta xatar ko futti ko ngir sukk kii mu sukkal sëriñam warmaal sëriñ Touba ñun na damay wax ni amuñu lenn lu dul sëriñ Touba gëmuñu dara lu dul sëriñ Touba dara lu dul kon képp ko nga xam ne gëm nga Serigne Touba te jébbalu nga tamit dëgg si yow ne aslamtu nafsi Pape Bouba jàll mii lii ñu koy laajal na sa ñaq dem te bu kenn xeeb dara dara parce que Serigne Touba xaju si kenn te lii nii buñ ko bàyyee mu jàll yeneen takk der ya fa des ku fi boofati daan la futti wala yu tëj la te boof kat mënut a ñàkk man de boof laa def te Touba ku fa dem boof. kii takk der numéro nga xam moo yilif takk der yëpp matagul weer bi mu demee Touba daa boofu ku fa mënti dem ndombal tànk boo mënti dem danga nga boofu loolu moo fa nekk loolu ko mos a nekk kon bu fekkee ku boofal Serigne Touba ñu dàqale ñu ne war a dàq bari na loolu ñun nag gëmuñu kenn ku dul Serigne Touba yaakaaruñ kenn ku dul Serigne Touba taalibe sëriñ tuubaa du liggéeyal sëriñ Touba pare di torox di jaaxle loolu moom defe naa ni amul fenn si àdduna bi kon jëf jii nga xam ne jëf nañ ko. ñaaw na waaye taxawaay bi nga xam ne murid Sëriñ Tuubaa taxaw nañ ko si àdduna bett rafet na lool di si lancé waat appel di si lancé waat appel na si murid yi yëpp yëpp yëpp dugal seen loxo def seen ñaq bu kenn xeeb bu kenn xeeb bi yéem dara ñun nag jamono bu ne suñu xool dana féex ndax ñu liggéey Sëriñ Tuubaa di sant Sëriñ Tuubaa di naan si kafeem gii tey wax jëre jërëjëf Sëriñ Tuubaa jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ku mën naqaree deel